ma mas na maa bëri di seetaanoo ko seetaan ngeen ko génne leen ko mu ngi ci net bi waaja lam ma def ko waay ji moo soxor nu mu tuddati Balla Diouf billaay Balla Diouf yaa soxor men moo ma wiic man la ma def sa xaw ma ko damaa ñëw sama yaram wi di métti métti goo xam te dama doon tourner euh, tabaski bi ca daral ga moom dafa am daral foofu ñuy tooñante nag songo waaye lam ma def xalifa loolu xaw ma ko loolu metti na. bàll bàll séréewul quoi bàll jub séréewul pour wax la rek yooyu boo ci jaaree ngeen bokk di ut mais mënu leen ànd ay adversaire ngeen di doon kii da laa bëgg a daan nga bëgg koo daan loolu rek la ku ne da nga bëgg a ndam ci sa kaw morom mais après loolu bu weesoo nag dëj dëj la dee dee la ngénte ngénte la takk-takk la ngeen fekkante su ngeen demee ca géew ba nag amatul maslaa kii rekk ay feem rekk la ku mën a dóor mu daanu dóoral ku mën a kott kottal su ngeen jëlloo yéen a xam waaye bu ngeen paree ca làmb ja nag ngeen dellu ci mbokk gi nag moo waral mootloo dem Modou sañu koo bañ a def ba njaay la dëkk xam na ma bu baax wax ko ko tey ba njaay la dëkk góor gi moor soob njaay mooy maamam maam mataar soob njaay góor baax firi naa alxuraan quatorze ans treize ans te tey ba njaay sëñ Abdou ma boole woon ak ñoom maam mataar ku yéeme bi faatoo dañoo yëkkati si jaadam fu ay million fa ne maa dëkkoon ak néegam a ngi nii sama néeg ngi nii ñoo sësaloo falaay fanaan ba koor gi jeex bés bu ne ci jàkk ji lay jullee sëñ Babacar waxoon ne Matar bokk naa ko te lu ma bokk doo wadd loolu la waxoon nee Njaay bokk naa ko te lu ma bokk du wadd moom bokk naa ko ba pare moo demoon ba waroon dem euh, coow lu am mu dem ci yoon jaar ci sëñ Babacar te bu yeggee dañ ko war a arrêté tëj laa wax mu tàggu sëñ Babacar dem sëñ Babacar ne ko boo waññikoo koo nga jaar fi mu ne ko si dañ may muy dem mu ne ko boo nga jaar fi mu ne ko xanaa si déggoo li ma wax su ma demee dañ may arrêté mu ne ko boo waññikoo koo nga jaar fi maam Matar moo ma ko neppelil kenn waxuma ko nee na ma ñëw toog ci biir salle bi nit ñi ni ci siège yi toog kii àtte ne tëll ne ana Matar Soom Njaay benn waaye ne bërit ne ko maa ngi mu ne ko yaa def nangam mu ne waaw ak nangam mu ne waaw mu ne waaw mu ne monité dugal ci kaso a ngi toog ñu monité waa ji dugal ci mu daw jaar ci sëñ Babacar sëñ Babacar ne ko bul yeggali Maodo dooy def yu ni mais Cheikh Alhaji Malick ko def defuma ko mu ne ko tariixa bi dafa am ay rawxaan mbindeef yu fi mel ni yéen buñ leen naree tëj rawxaan bay jël seen place soo demee ca kaso ba doo ko fa fekk dem na mooy maami Modou Lo Modou Lo benn kii mooy maamam xam naa ko di moom nag xam na ma foofu laa yem rek xam na ma daal bu ma déggee na xam ne xam na ma waaw wax la rek loolu dara ne ku ci dafa baax ci nga fekkante mais maam Ablaye Wade Macky Sall maam Ablaye Wade defe naa dem na palais seeti ko amu fi woon bu fekkee amul ne ma ko baal waaw amoon nañu gisee xam nga ah masaalikul jinaan ku ko dox sañ sëñ Muntaxa sama xarit sama xarit la sama baay la sama sëriñ la sama maam la maa ko téye soxlawul mu may téye téye naa ko ba pare mooy borom yokk gi nag loolu la tudd sëñ Muntaxa borom yokk bi yokk ku fi indi xasida yi moom am na lu waxaat waa kii di Hizbut Tarqiyyah uh-huh. ñetti fan avant màggal uh-huh. bis bu nu ñu jàngi xasida amul uh-huh. ba ci suuru màggal moo tax sëñ Muntaxa borom yokk gi ngeen koy tuddee <laughs> waaw sëñ Muntaxa Mbàkke borom yokk gi waaw yeneen am na yeneen yu ma tuddagul di moo leen moo leen boole ñu jàmmoo ci la Tayib Socé génn ci la Khalifa Sall génn waaye sam boobu lëf la de sëñ Muntaxa ñëwam ngi ci masaalikul jinaan xam nga masaalikul jinaan lu muy firi mooy duggukaayu aljanna téere la saal bi da maa ngi ak masaalikul téere la ñu tabax jumaa ju tudde ko masaalik kon kay bu fi ñëwee duggaay aljana la tayib génn xalifa génn Ablaye ak Macky juboo jeex na ak yi ci des oto climatisé la dugg ñëw ba muy dem moom la war nit ñi julli ci garab yi julli ci oto yi julli ci miir yi lu ne ñu def ko maamam ba mu fiy jaar metti woon na de waaye bi sët bi ñëwee neex na ku mu naqari nga deeñu suuli la